alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa taslima mbokk yi seen yóbbalu bis bi ak ndongali Cheikh Ndiaye Gana Sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahoo am na ku mu masa wax ne ko ndax xam nga gone gu am xam-xam te amul ab yar nu mu demee mu ne ko déedéet mbakke sëriñ bi ne ko mu ngi mel ni boroom doole ju yor ab xaal dem ba ci dëtt mbir mooy kekk mu wocc ko nu muy def mu ne ko tasar sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaara la ko ne ko noonee la demee siiw na loolu moo tax sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaara la di wax ne fa kasratul almi bi xayri adabin jaalibatun ilal aza bi sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaara la ko na dénk naa leen ngeen wattandiku seytaane ndax ak yàqam njëlbéen ga day mel ni kuy defar ca mujj ga ngay door a xam ne ak yàq la li tax ngeen mën a mucc ci moom moo di ngeen xam ne ab sàcc la te ab sàcc fu ñu ko foogul rekk lay ñëw mbir moo ko foog mu daw ca loola siiw na loolu moo tax sëriñ Tuubaa xaadala wallaahu maxtaara la di wax ne laa tamanu makaida sheytaan qabla firaaqi ruuxi lil abdaan wér na wallaahu a'lam sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal